ndiiɗo <laughs> ndiiɗo dégg naa ci bëccëg ñam na de ndiiɗo <laughs> amna ku ñam ci bëccëg de ci côté côté côté ngor côté kota ngor de romb naa fa seen politicien bu ñu de moom <laughs> may leen tapale gi yeen sëñ bi koku bu faato ngeen ne ilisu ilisu gala ko faat waxo leen waxoo leen ci ba tey ngeen jëm élection naan da ngeen di jaare ji waa ngor a nga fa am <laughs> waa ngor akanoo am ngor <laughs> mbiiroo de dégg naa xaw nañ koo rey waa ngor nag candidat Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne am na soixante-quatorze ans bu ngeen ko rayee ci diggante bi fu nu jëm bu leen ko sànni bu ngeen ko bu ngeen ko rayee élection yi mën nañ ko reporter bu leen rey candidat Benno Bokk Yaakaar bi du am dara <laughs> di ah, ah, <laughs> naa wa Ngor xaw dañ ko rey daa daw tey gars yi nee nañ lañ xam ne Amadou Ba Amadou Ba li muy magat màggat noonu la mën a dawee di xel yim ñàll yi Ngor Ngor maa leen bëgg ay Ngor maa leen bëgg am Ngor yéen am Ngor yéen état wu Sénégal limu leen 2012 ak légui kenn wa Ngor da leen a génnee ci dëkk bi nangu na seen suuf jaay na seen géej rey seeni doom naan da koy jaale si yéen am fulla waa ngor